boo xam ne wax dëgg yaakaar yaakaar koy defal ci kaw suuf euh, yow it nga am koo xam ne nga doon koo xam ne nii ku am relation ak ki nga xam moom El Hadji jii nga teewee bés bi ana yan seede nga a yëkkat waaw ñàkk nañu ku amoon njariñ pour réew mi ñàkk nañu dëkkandoo ñàkk nañu référence dëkkandoo bi sama baay moo ma wax sama waajur bu góor ba ñu dëkk see sacré mu nañu lépp luy xewati fii Sidi Lamine mooy seen mag xale yi fa juddu ñiñ fa maye ña fa ñaan jabar yëpp sëriñ Sidi Lamine moom moo ko jiite kon xam nga ni relation boobu relation bu dëgër la bi ci topp man su ma defee presse ak ñu bare bu ñu defee presse Sidi Lamine moo tax moo tax ñu ñeme mu ne kàngam bu am solo ci wàllu presse wane ci côté yëpp yi nga xam ne que moom la euh, nitu kilifa presse war a am beneen bi mooy si Lamine bu réew mi soxlaa chaque fois dafay taxaw jël instrument am jël jëmmam man léeg-léeg dama ko yërëm sax mais day taxaw pour askan bi dëgg-dëgg ku baax dem na ku amoon njariñ pour réew mi dem na yàlla na ko yàlla xare na ah. te lii nga xam ne moom la fi bàyyi mënul yàqu ndax dafa am ay diir yoo xam ne boo ko defee ci liggéey taxaw ci gis ci des hauts et des bas comme ni ko tubaab di waxee boo ko fi bàyyee tamit du yàqu te yéen li mu leen bàyyil fii lu am solo la donc kon nag euh, Sénégal lañ koy jooy ndax euh, ku amoon njëriñ pour askan wi la man daal loolu laa ci amoon lu may wax li ci des yëpp di ñaanal njabootam ñu am courage Euh, vraiment li nga xam ne dafa bette ñu am courage bi nga xam ni que euh, loolu la yàlla santaane euh, dékku mbir mi gëm yàlla te continuer liggéey bi yàlla xaree ko àjjana jërë ngeen jëf. jërëjëf ñu di ko jaajëfal baax moom Youssou Ndour Youssou Ndour nekk njiital groupe Futurs Médias nekk itam ku nga xam